année bu nekk baaxoo nañ di def jotaay bu mel nii waaye Guédiawaye mooy suñu ville préférée mooy ville bi nga xamante ni balaa ñoo dem fenn foofu la ñuy commencer année bu nekk li koy dëggal mooy dëkk yu bëri dañuy yónnee rek mais géejawaay il faut ambassadeur nee na mooy ñëwal boppam wala Sadio Dafera mooy ñëw muy wane place bu Guédiawaye am ndax c'est un partenaire de premier plan pour l'ambassade et pour les Émirats arabes unis donc tant que cette maire mu fi di Alioune Sal, maire dynamique entrepreneur ak travailleur collaboration bi continuer partenariat de day gën di chaque année ñuy ñëw muy gën di acte solidarité bien imposé, posé waat ren bettuñu ndax seen jikko la ci politique la bokk. waaye nag mel na ni yeesal la boo xam yegg na ci sunu xol nit ñi ñu ngi waajal koor ak weeru koor ni mu teddee waaye ak ni mu diisee nga jóg am yéene fàttalikuñu ñun waa Géejawaay yëkkati lu am solo lii may seen teg ko ci seen loxo ngir solidarité yaa ngi liggéeyal yàlla subhaanahu wa ñu nit ñi nga xam ne ñooy jot mbir mi sunu warugal mooy ñaanal ñi nga xam ne seen alal lañu yëkkati man en tant que maire am na lu ma war a jàppale askan wi pas ci alalu mairie bi parce que mairie bi amul budget waaye ci li ñu yàlla sa euh, jagleel wërsëgale ak li ñu ay mbokk jullit di jàppale loolu nag du jaar toujours fi mbir mii jaar dama war a liggéey war a jàppalante ak kule kuréel yu bari yi nga xam ne dañuy représenter askan wi yépp dans cadre maye naa 3000 kits ramadan yoo xam ne dama am yéene jaarale ko ci association personne troisième âge te doyen Daouda Tine jiite ko